képp ko xamante c'est une personne responsable yàlla dimbali la nga nekk un responsable digne de son nom euh, ak société sénégalaise ni mu avant de faire toute chose il va falloir réfléchir profondément parce que ñun une société ni mu tëddee mooy dem ba sa ginnaaw mooy yaatu c'est choix dootul doon ay choix personnel. yoo xamante ni da pour ton propre bien rek mais da nga koy partage ak beaucoup de personnes parce que euh, y aura ta famille derrière toi

Parce que tu dois te dire à chaque fois que euh, ton bonheur sera le bonheur de ta famille. Ce bonheur bobu nonu, ce bonheur xarit lay doon ce bonheur bobu nonu, bonheur wa koñ be lay bonheur bobu bonheur képp ko la bëgg lay mais aussi tu dois te dire que les malheur itim bu ñëwee non lay démé, mais aussi gàcce itamit bu ñëwee non lay démé quoi genre dans la vie il y a que ces deux personnes la personne bi nga xamanté ni mom da am fierté à chaque fois di ni ki xam nga ko à chaque fois dama wax ni mëndir mi kat xamna ko quoi wala mëndir mi sama frère la wala mëndir koñ wala mëndir mi kat dama ko yag bëgg et tout ça fierté bobu non. qui lenn moko à chaque fois nga nek ci yoon bi nga xamanteni yoon et tout ça mais de l'autre côté ben la bo xamanteni paramètres dans sa vie il ne fera que décevoir tout son entourage à chaque fois da ngay mujjé sax am gàcce pour wax ne maa yore mi sama mbokk la da nga koy mujjee nëbb foo jaar parce que kat choix yi muy def dans la vie yëpp du nek ay choix yo xam te ay choix yu bax la quoi kon ñun à chaque fois suñu dund dañu wara sooralé paramètres bobu boobu noonu quoi lépp lu ñuy def ñu sooralé ñi nga xam te ñun ñoo nekk suñu ginnaaw parce que y a beaucoup de personnes yo xamante ne tey mën nañ leen tuddé star wala nit ñi def leen ay idole wala ay référence dañu mujjé faté yoy noonu quoi genre dañuy gis né il y a beaucoup de gens qui tiennent à eux mais malheureusement dañ koy fàtte dañuy def ay yoo xamante ne euh, ñi leen bëgg buñ ko mujjé buñ ko déggé rek manam lu safano ak content lañuy mujjé def quoi gàcce leen leen di mujjee jure wala genre kon képp ko xamanténi ni am nga ñu lay bëgg rek à chaque fois da nga wara a xel ñi nga xamanté ñoo lay bëggee si ces choix yi ngay def nga baña a lo nga baña def lo xamanté leen di gàcceel mais à chaque fois nga sax si def lo xamanté ça buñ ko déggé contentement lay jur si ñi nga xamante ni maanaam bëgg nañ la ko